def mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun sans limite TV votre site d'information ñu ngi leen di euh, nuyuwaat bu baax ginnaaw ba ñu jógee euh, foofee ci palais de la république àndoon ak la PM Ousmane Sonko ak itam Omar Samba Ba nekk secrétaire général bi lee ñoom nag daal di nañu euh, bérél li nga xam ne moom mooy liste complète des membres du gouvernement jëriñ yi nga xam ne. ñu fas yéene ànd ki nga xam ne moom mooy euh, Ousmane Sonko ci bile liggéey te ka leen jiite du kenn ku dul président Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu ñëw ci ñenn ñi nga xam ne daal dina leen di euh, tabb kañ koy tàmbalee nag ma nga fekk baax ca diwaanu Thiès kooku nag moom mooy Jean Baptiste euh, tin comme ni ko ñenn ñi gën a xamee aimer respecter loyal et compétent Jean-Baptiste moom nag euh, nommé woon nañ ko maanaam tabboon nañ ko mu nekk au commandement de la gendarmerie nationale nekkoon itam directeur de la justice militaire moom Jean-Baptiste nag mu ngi euh, dugg service le 1er septembre 1981 moom général jaar na fu bare bari jaar na fu bare bari nekk na sous-lieutenant le 1er octobre 1984 nekk lieutenant en 1986 capitaine en 1991 chef d'escadron à partir de 1997 ñu daal di koy tabb itam mu nekk lieutenant colonel lieutenant colonel en 2003 laata mi nekk colonel en 2006 moom mi nga xam ne moom mooy. Jean Baptiste fekk baax ci diwaanu Thiès moom la ñu daal di euh, tabbu mu nekk euh, ministre de l'intérieur ak itam li nga xam ne moom mooy euh, kaaraange gile bu ñu jógee ci Jean Baptiste keneen ka ñu itam ma nga fekk baax ca diwaanu Thiès di itam ci turu général biram Diop moom général biram Diop nag mu ngi juddu 1961 foofee ca diwaanu Thiès moom nag. jaar na fi nga xam ne moom mooy euh, ca Prytanée militaire ba nekk ca diwaanu Saint-Louis ginnaaw bagam bile moom Birame Diop nag nekkoon itam major ca concours d'entrée école polytechnique euh, ca diwaanu Thiès IUT jàll itam ca concours d'entrée école air du Maroc nekkoon itam koo xam ni dañ ko ràññee woon lool maanaam meilleur pilote du Sénégal ginnaaw itam stage yu bëri yi nga xam ne def na ko foofee ca diwaanu France ak itam foofee ca États-Unis moom euh, mi nga xam ne nag moom mooy euh, Biram Diop lañu ñu euh, daal di tabb mu daal di jiite li nga xam ne moom mooy forces armées moom Biram Diop nag la ñu daal di tabb tey jilee bu ñu daal di jógee ci Biram Diop ñu jàll ci keneen koo xam ni itam Euh, tàbb nañ ko tey sénégalais yëpp itam daal di ko miin di wéy ci turu Moustapha Mbaba Guirassy moom nag nekk homme d'affaires homme politique homme de foi nekk itam euh, directeur euh, wala sax fondateur de l'Institut africain de management IAM bu nekk fii ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye moom mi nga xam ne nag moom mooy Moustapha Bamba Guirassy ma nga fekk baax ci diwaanu euh, gu nekkoon fa sax maire moom Moustapha Bamba Guirassy nekkoon itam euh, ministre ci jamonoy nguuru euh, président Abdoulaye Wade moom Moustapha Bamba Guirassy nag lañu ñu daal di tabbu mu daal di jiite li nga xam ne moom mooy wàllu éducation national moom Moustapha Bamba Guirassy bu ñu jógee itam ci Moustapha Bamba Guirassy ñu dàll ci keneen koo xam ni itam Sénégal yi miin nañ ko lool à travers ay discours am di wuyoo ci docteur Abdourahmane juuf vingt cinq ans d'expertise en droit commercial international et régional et qu'en développement du secteur privé docteur Abdourahmane Diouf intellectuellement bien préparé consultant international auprès d'organisations international jaar na fu nekk dëkk bu nekk jaar na fa nekkoon itam euh, foofee nga xam ne moom mooy ca diwaanu Suisse fa sax li nga xam ne euh, moom mooy titulaire euh, fa la amee bii le diplôme titulaire de doctorat en droit international économique de l'université de Berne en Suisse il s'est distingué dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest maa ngi koy wax sànq fu nekk jaar na fa moom mi nga xam ne moom mooy docteur Abdourahmane Diouf li ko gën a sax aspiré ba sénégalais yi gën koo miin moom mooy ci wàllu affaire maanaam la gestion des affaires de la république nekk itam koo xam ne ñëpp ràññee nañ ko mu nekkoon candidat ci élection yi nga xam ne euh, moom la ñu daal di génn gis ngeen fa mu mujj dem bokk ci bile coalition coalition Diomaye 2024 moom El Hadj Abdourahmane Diouf moom nag la ñu daal di dénk ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation moom docteur El Hadj Abdourahmane Diouf bu ñu jógee ci euh, docteur Abdourahmane Diouf ñu jàll ci keneen koo xam ni itam sénégalais yi miin nañu ko lool di wéyoo ci turu Mabouba Diagne Mabouba Diagne nag moom la ñu daal di tabbu mu nekk ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage moom Mabouba Diagne nag nekkoon na vice-président chargé des finances et de services institutionnels à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Il est un banquier d'investissement et de développement international chevronné qui a exercé pendant plus de 20 ans diverses responsabilités au niveau exécutif dans plusieurs régions d'Afrique moom mi nga xam ne moom mooy docteur Mabouba Diagne jaar na fu nekk la mu gën a xam nag moom mooy ci wàllu koppar jaar la ci dëkk yu baree bari responsabilité yu bari itam moom mi nga xam ne moom la ñu daal di tabb mu nekk ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage daal dina koy occupé bu ñu jógee ci docteur Mabouba Diagne ñu jàll ci keneen koo xam ne itam jigéen la ñu ràññee ko lool di woyee ci turu Khady Diène Gaye nekk juriste de formation nekk itam inspectrice régionale des sports foofee diwaanu Kaolack nekkoon itam inspectrice régionale des sports fii ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye nekkoon directrice de formation et de la coopération au ministère des sports nekkoon itam présidente de la commission sport du parti euh, nekkoon itam présidente de la commission sport du parti PASTEF les patriotes moom nag dañ ko affecté woon foofee ca diwaanu Kaolack te ki ko affecté woon du kenn ku dul ki fi nekkoon ministre des sports di woy ci turu Yankhoba Diattara alors moom Khady Jan Diène Gaye moom nag la ñu daal di tàbb mu nekk ministre de la jeunesse des sports et de la culture moom yi nga xam ne moom mooy Khady Diène Gaye bu ñu jógee ci Khady Diagne Gaye ñu jàll ci keneen koo xam ne itam tabb nañ ko mu daal di nekk euh, ministre de l'environnement et de la transition écologique di woowee ci turu Daouda Ngom Ngom nag professeur titulaire la d'écologie appliquée et responsable du laboratoire écologique et d'hydro didro d'hydrologie du développement de biologie végétale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar expert consultant en environnement, membre du groupe de travail technique de l'UNESCO sur le zone des réserve de biosphère nommé nañ ko wala sax daal dinañ koy tàbbu mu nekk ministre de l'environnement et de la transition écologique mbokk yi mi ngi noonu kon nag list baa ngi noonu xam naa ne dinañ ñëwaat ci ñi nga xam ne ñoom lañu ñu tàbbu ñu daal di nekk jawriñ ku ci mel ni Yacine Fall nekk ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères Ousmane Diagne nekk ministre de la justice garde des sceaux Birame Souleye Diop nekk itam ministre de l'énergie du pétrole et des mines Abdourahmane Sarr ministre de l'économie du plan et de la coopération Cheikh Diba nekk ministre des finances et du budget Malick Ndiaye ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens Amadou Amadou Moustapha njekk sare nekk ministre de la formation professionnelle porte-parole du gouvernement Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Alioune Sall député jaspora ñu bëri itam dañ ko doon jaawale ak Alioune Sall bu Géejawaay du moom kii député la euh, nekk te diaspora bile moom nag la ñu daal di tabb mu nekk ministre de la communication des télécommunications et du numérique keneen ku ñu tabb dinañ ci ñëwaat di Serigne Gueye Diop nekk ministre de l'industrie et du commerce Fatou Diouf ministre des pêches des infrastructures maritimes et portières Maymouna Dieye ministre de la famille et des solidarités Yankhoba Diémé ministre du travail de l'emploi et des relations avec les institutions Balla mussa Fofana ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire Ibrahima si ministre de la santé et de l'action sociale Olivier Boucal nekk ministre de la fonction publique et de la réforme du service public Alioune Dione ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire Mountaga Diaw ministre du tourisme et de l'artisanat dinañ ci ñëwaat suba incha allahu rabbi ak seen i nataal ak ñeneen ñi nga xam ni tàbb nañ leen def leen ay secrétaire d'état jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun sans limite TV votre d'information